yéen ñii di suivre suñu kër gi di Faaida TV bu ngeen bëggee di jot ci suñuy programme ak di seetaan suñuy video da ngeen di abonné ci seen bii di Faaida TV ngir abonné da ngeen di bës ci bind bu xonk bi ñu bind abone waaye bu leen fàttee bës kolos bi ngir man di jot suñuy notification waaye bu leen di fàttee sem tey partage suñuy vidéo ak Faaida TV njaxiñ kase la leen di jural layla al laylatu mawlidin nabi laylatu maxwiriya bi laylatu maxwi taabi wa tuhri zi taathumi bokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ziyaara mbokk yépp ci guddi gu tedd gi di guddi juddu ngeen ji mbindeef alayhi salaam di leen ci ndokkeel itam di ndokkeel ñi doon yëkkati xasaayit yi léegi mhm. jasbul xulub bi ñu fekk ñu ko doon yëkkati nga xam ni dafa bokk ci xasaayiti mawlud di ziyaara baax Seydina Omar Cissé al mu nekk koo xam ni kenn la ci ñun suñu wëllëre waaye di suñu mbokkum taalibe mu nekk ambassadeuru Serigne Touba yàlla dogal ñu xamante fii ci Nord Foire jumaa ji ngeen jàkkaar lool moom bokk na ci ñi fiy taxaw àjjuma di gindi jullit ñi waaye ku ko gis doo nattable ni taalibeeb sëñ la danga ko naw ci xam-xam ba noppi wëlbatiku nag xam ni moom amul sikki sàkk ci ni taalibeeb Cheikh Ahmad Bamba Xadimu la bokk ci ñi fiy jiite ak ci yeneeni jumaa sax ci gox bi Dakar marin ak jumaa yu bari ci biir Nord bokk na ci kilifa yi nga xam ni dañuy gindi jullit ñi waaye bokk ci ñi déggoon la Sëñ Tuubaa waxoon ni lil Mustafa nawaytuma yujaddidu sunnatahul gharra wa indi ahmadu sama intention man Cheikhul Khadim du dara lu dul rekk yeesalaatal yonent bi sunnaam si nga xam ni dama fekk mu ràpp mu xam ni itam moom Cheikhul Khadim dina fi bàyyi ko physiquement nde moom jugu fi spirituellement mi ngi ak ñun moom Cheikhul Khadim waaye ci côté physique xam na ni dootuñ ko teg bët liggéey bi mu doon liggéey muy service bi muy liggéey sallallahu alayhi ci côté physique yi day am fu muy yem ba taxoon mu ni zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyal mustafa tajtahidu aw nahja nabiyil mustafa tajtahidu yow sunu borom maa ngi lay ñaan su ma fi bàyyi ko physiquement nang ma may njaboot goo xam ni dañuy àggale service boobu physiquement njaboot googu nag tënkuwul ci deret ndax sëñ Tuubaa loolu yeete na ci ba tàyyi ci jamono bi muy woo sëñ Fàllu ak sëñ Moodu Moustapha ni leen fii njureel mayewu fi dara ak bokkutam mayewu fi dara ba ñoom ñaar ñu jaayante ca la Cheikh Mamadou Fadal waxe woon bayitam yu siiw yooyu biatu bunubatiya bil irada lakum li kay ahza bi xarqi aada sama njureel kat njur gi ma jur jaay naa ko jënde ko doonub taalibe kon Sëñ Tuubaa njaboot gam doon wax njabootug ruux la waaye du njabootug deret Sëñ Omar mii nag daa bokk ci njaboot googu nga xam ni la sëñtubaa bëggoon ci yeesalal yonent yàlla Muhammad sunnaam te def ko physiquement te dina fi jóge physiquement ñaan njaboot gu koy àggale physiquement njaboot googu Seydina Omar mii yàlla daf ko cee boole alhamdulilahi rabbil alamin yàlla na yàlla nangu liggéey bi sëñ Moustapha ñu ngi lay ziyaara bu baax bis bi képp ku fi ñëw rek di wax ci sag yaatal lay doone ndax daaw waxtu yi ma fi jot a def rek jële naa fi ay bind yoo xam ne topp ba topp na ma ba ren ji macha allah yal na yàlla aar la sàmm la te dolli xam-xam bi mboolem wëllëre yi toog itam ñu ngi leen di ziyaare ci bis bi di leen xamal ni daal kóllëre rek moo ñu fi indi waaye sax du waxtaan ndax yàlla def na lépp a ngi fi bu dee jàngkat yi du ngeen ko jëngaa jëggaani bu dee ñu mën a wax lu ñu dégg itam du ngeen ko jëggaani sëñ Moustapha ngi nii Seydina Omar a ngi nii ni ma ko waxee waaye dañu fee ñëw pour feddali suñ kóllëre waaye sàkku si barke muy guddi goo xam ni guddi gënu ko ci guddi yi amul guddi gu ko gën ci gis-gisu sëñ Touba te gis-gisam it nag mooy suñu gis-gis ndax xam ngeen laylatul xadr sax yàlla wax na dimension bi wax nañu dimension xayrun min alfi shahr waaye nag taxul ni mu ni moo gën ci guddi yi xamal nañu ni moom moo gën junni weer waaye guddi gii nag yàlla dafa waxul ngëneelam dimension nim rëy moo tax sunu borom lëm ko lu tax borom guddi gi sax yàlla dafa lëm dimension maqaamaam yàlla waxu ko kenn sëñ Tuubaa li muy sori sori ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi informé ni maqaamam yonent bi ku dul yàlla boromam xamu ko maqaamaatu xayril xalqi an xayri rabbihi mugayyabatun soo ko weddee fal taqra suurata naj mi boo demee ci muqaddamatul amdaax ca bunt ba mujj sëñ tubaa dani maqaamam yonent bi daraja jim amee ku dul yàlla mi ko bind fàddu na ci yow lu absenté la ci yow xamoo ko mu ni nag boo ko weddee demal nga jàngi suurata mi bañ na ko ba taa da caa boole nuunu tawkiit muy nuun boo xam ne bu ko araab utilisé ci wax daf lay soññ ci lim la wax nga def ko ndigal la Sëñ Tuubaa nee na boo weddee rek maqaamam yonent bi ni ku dul yàlla xamu ko demal nga jàng surata najm fal taqra an surata najmi suratu najmi suñ borom junj la ca def rek junj ndax yonent bi dafa def ñaari voyage yoo xam ne benn bu ci nekk rek c'est incroyable lu extraordinaire la nit ordinaire mënu ko voyage bi ci njëkk mooy jóge madine euh, makkatal mukarram baytilaayal xaraam dem baytil muqaddas baytil maqdis muy Jérusalem loolu lu incroyable la ci diggante boo xam ne matul fanweeri minit diggante bi ñuy bëgg a salaatu ak biñ salaatoo nga def fi voyage boo xam ni jóge nga baytilaayal xaraam dem baytil maqdis ci loo xam ni gëléem gu suur boo xam ne day waaxu dina ko dox doxub juróom benn weer yow nga dem dikkaat ñu ni déetawaay nga jóge fa dem sidratul muntaha fa gën a sori ci horizon yi génn nga sax univers bi ñu nekk waxatuñu ko dikkaat ci lu matul fanweeri mi minute xam li xew lépp nga mën koo expliquer ba ñu doon voyage diggante Jérusalem nga wax leen seen njëgg mi réeroon la ko réeral ak nañ nañ def ba ba gisaat seen njëgg ñu ni noonu la demee de loola ku xaw a xóot tuuti ci science buñ koy expliquer xëy na nga am loo ca gëm ndax ngëm-ngëm moom ndimbalu yàlla lay doon dina koy misaal suñu lumière yi ñu yàlla musal rekk lumière yi nga xam ni yàlla musal nañu ko fii ci àdduna mu man di leeral suñu barab yi di leeral suñu tànt yeeg suñu néeg yi yéen scientifique yi yéen wax ni vitesse lumière gaaw na gaawaay bu toll ni mën naa xët trois cent mille kilomètres pas heure waaye seconde trois cent loolu moom gaawaayam kenn mënu ko misaal lumière boo ne ko tay fi nga ko taale ak fi muy àggee ci xët lu toll ni trois cent mille kilomètres ci seconde lay lay lay lay toll mu mel ni fa gën a sori ci àdduna bi mën na koo def aller retour ci benn seconde pas heure lumière yi te lumière yi amul sikki sàkka ci ni ci leerug sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam lañ ko sàkke ci lumière lumière yonent bi ci lañu créer lumière yi Sëñ Tuubaa dani min nuurihi kullu nuurin saati'un bi sana nuuru nujuumi wa nuuru shamsi wal qamari ba mu waxee kullu rek lépp luy lumière dugg na ci nee na ci ak leeram moom sallallahu alayhi wa ci la bàyyi ko lépp luy leer ci lumière yonent bi lépp luy lumière ci la bàyyi ko lépp kay jeex na waaye mu tuddal la la la gën a jommal ci leer muy nuuru shams leerub jant bi nuuru nujum yi leerub bidiw yi wa nuuru shams ak jant bi wal xamar ak leeru weer wi te ku ne xam na ni jant bi mooy alimenter courant yi muy suñu lumière yi jant bee koy alimenter mooy chose fondamentale bi te jant boobu ci leerug yonent bi alayhi salaatu wasalaam lañ ko bind te leerug yonent bi ci lañ binde malaaka yi te malaaka yi lumière ba ñuy dawee bii rek gis ngeen gaawaay bi ma ci wax bii ñu yor ci àdduna di ko gis ana malaaka yi malaaka yi yàlla bind ci leer kase bu saxul bu raxul matière ñoom fi ne mën nañoo xëtt la gën a sori ca na mu gën a gaawe diggante lu gën a néew seconde bi may wax muy tiers lu gën a sax néew tiers malaakal mawti mën na cee faagaagal àdduna bi yépp rocc ci seeni roox gaawaay baa tax dafa gaaw foo ko takk weesu na ko moo gën a gaaw vitesse lumière bi ñu am ci àdduna parce que seen seen leer moo tax te pourtant ñoom seen leer ñoom malaaka yi leeru yonent bee ko alimente moo tax suratu najmi googu ñu sëñ Tuubaa di junj ni boo weddee maqaamam yonent bi jàngal suratu ma yàlla daf ñuy nettali foofu foo xam ni yonent bi génn na univers bi ci suratu najm def isra wal mi'raj fekki boroomam ba toog ak moom génn univers bi ci lumatul matul 30 te univers bi ñaata ay planète ñoo fi nekk suñu planète terre bi diggam ak Jupiter ñaata kilomètre la di ak Mars digg ak diggam ak Uranus diggam ak diggam ak te dem ci planète yooyu sax taxul nga génn univers bi loolu yaa ngi yem ci suñu galaxie bii rek suñu galaxie bi te ñaata galaxie ñoo am galaxie bu ci nekk ñaata ñaata ñaata ci ay planète la yor la amee te galax galaxie yi rek ay millions yi millions galaxie la galaxie bu ci nekk ñaata planète la ëmb suñu galaxie bi rek ëmb na lu mat neuf planètes ci yu ñu xam yonent bi xëtt ko xëttaat xëttaat xëttaat ba génn univers bi yi nga xam ni lépp matériel la lu ñuy xool di ko gis la di ko làmb di ko daj mu génn ko dem ba sidratul taxa suñ borom di ko nettali ci suratul najm di wax ne wan najmi isa hawe maa dalla saahibukum wa maa gawe maa ngi waat ci lépp luy leer ni seen waa ji réerut te it li muy wax fu leer la ko teg bewut ma dall saaxibukum wa maa xawe wa maa yantiqu anil hawa te waxewul bànneexu bakkanam in huwa illa waxyun yuxe lu mu leen wax rek inspiration la bu yàlla jox jibril mu jox ko ko mu wax leen ko in huwa illa waxyun yuxe allamahu shadidul quwee te voyage boobu àgg na foo xam ni ku am force spirituelle moo ko doon présenté milliers yooyu mu nekkoon nga xam ni du univers bi lépp lu spirituel la kak ko doon présenté nee na ku am force spirituelle la muy jibril muy jibril alayhi salaam zu quwatin waaw ah, allamahu shadidul quwa zu mirratin nga xam ni foofa la ko yàlla won boo demee ba ci biir saar bi mu ngi ni wala qad ra'ee wala qad ra'ee min ayaatihil kubre gis na kiimaan yàlla yi gën a mag bokkut ak yii ñu scientifique yi indil moom weranteetuñu ko mu yooyu may wax ndax ñu ngi koy gis waaye kiimaan yàlla yi gën a mag signe yi tegtale kàttan yàlla yi ci gën a mag gis na ko foofu teg na lépp bët te maa kadabal fu aadu maa ra'ee la mu gis xolam weddiwu ko lum ni jàkk la xam ko man koo expliquer muy barab yoo xam ni moom doom nga fa dem la gën a yéeme sax ci li may expliquer ci leeram googu moom sallallahu alayhi wa sallam mooy jibril mii lii firndeel ni leerug yonent bi lañ ko binde am na ci benn moment buñ àgg dani man mënumaa dem dani yonent bi sallallahu fii mësuma mësuma ko weesu su ma ko weesoo damay seey ci leeri sans borom yi dama ciy sey yonent bi continuer ba àgg sidratul mënta alxuraan a ngi nettali ci suratu najmi ni indaha jannatul mawa sidratul muntaha fa janatul jannatul mawa nekk yàlla nañ ca dugg bam fa àggee summa dana fata dalle mu jige boroomam jige goo xam ni ni ko yàlla expliqué fa kaana qaaba qawsayni aw addine jige gu toll ni fit fit ak buum nga dox ca bant ba niñ jigéeyoo bantuk fitt ak buum ngeen cay takk nan jigéeyoo noonu la jigee boromam subhaanahu wa taala foofa kenn nekku fa du jibril du mikail du benn malaaka bu fay egsi mu jigee ko boromam aw àddina wala sax lu ko gën a jigéen alxuraan ay nettali ci nettaleem yu neex yooyu di la tegal scénario boo xam boo koy imagine sëñ bi dangay sori da ngay génn fii yépp aw àddina lu ko gën a jige mu egg foofa ndeysaan nuyu yàlla attaxiyaatu lillah azzakiyaatu lillah attayibaatu salawaatu lillah sun borom nuyu ko assalaamu alayka ayuha nabiy wa rahmatullahi yàlla kenn du ko ñaanal jàmm moo tax waxul assalaamu alayka mu ne assalaamu alayna wa ala ibadillahi saalihin ñaanal ñu ñun ñépp dugal ñu ci nuyoo booba ca foofa ca barab yooya yu sell yooyu kon gis nga alayhi salaatu wasalaam maqaamam kenn xamu ko jibril sax xamu ko xamul lu fa xew moom rekk a ko xam diggam ak boroomam la sallallahu alayhi wa maqaamaam googu nag moo tax saxaaba yi bi yonent bi ñëwee indi juróomi ponk yi juróomi ponk yi ngeen di xam shahadatu an laa ilaaha illallaah wa muhammadur rasulullah iqaam salaat itaaw zakat sawm ramadan hajjil bayt ñu tàmbali di ko jëfe mu nekk al amal as jëf yu baax yi li jëf yi di baax baax yàlla daal di wàcce saar boo xam ne tàmbalima saar bi dañu seen jëf yi daanaka damay bëgg di tontu gaa yi bi daal gàmmu moom laa wax ci tànt bi ma jóge léegi ci Touba Tawfiq gars yi bi daal gàmm xoolal saxaaba yi loo mën a mën a julli ñoo la ko dàq ci ñoom la wàccoon looy dund dund sunna ñoo la gën a dégg sunna fuuf ndax ñoom yonent bee leen ko jàngal jàng wuñ ko ci ay téere wala ci seen diw déedéet ñoo la dàq ak màkka cinq prières yëpp ñoo la ko dàq def te pourtant saar bii ci ñoom la wàcc de yàlla ni leen seen jëf yi ñàkk war ma yonent bi mën naa tax mu yàqu seen jëf yi julli yeeg woor yi yaa ayyuha allazina amanu laa tuqaddimu bayna yaday illaahi wa rasulihi wattaqullah inna allaha samiun alim yéen ñi gëm kon waxut ak ay yéefar waxut ak ay naafeq yéen ñi gëm saxaaba yi lay waxal particulièrement waaye d'une manière générale mboolem kuy jullit ba àdduna di tukki dugg nga ci yéen ñi gëm bu leen jiitoo jiitooti yàllaa ko yonentam ci lenn nag lu amati déglu leen ko ci te ngeen ragal yàlla yàllaa ngi leen di gis di leen dégg mu continuer di leen yar ci wor ma biñ war a ànd ak yonent bi sinon seen julli yàqu seen wor yi yàqu ak lu mu sell sell yaa ayu lazina amanu laa tarfau aswaatakum fawqa sawti nabii wala tajharu lahu bil qawli ka jahri baadikum li baadin an tahbata amalukum wa antum laa tashurun laaye jooju boo demee moom lañ bind ca barabu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca madinatul munawara yéen ñi gëm bu leen yëkkati seen kàddu ci kaw kàddu yonent bi li Cheikh Ibra indi kër sëñ Touba moo ne ci saar bi dafa Cheikh ra indi rek ak taalib suñ borom ni leen bu leen yëkkati seen kàddu ci kaw kàddu yonent bi maanaam mooy wax ngeen di ruube ci suuf wala ngeen di am lu ngeen di ruumandaat ci suuf bu leen ko def la tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum te bu leen di weranteeg moom di waxanteeg moom ci kaw ni ngeen koy defante seen diggante bu nee benn ngeen ni fukk lu mu wax ngeen indi ci xalaat bu leen ko def ndax loolu an taabata ahmaalukum mën naa yàq seeni jëf wa antum laa tasunuun te fekk du ngeen ko yëg ngeen nekk ci julli gu metti ak koor gu metti foog ni loolu mooy diine ñàkk war ma yonent bi yàq loolu lépp te du ngeen ci yëg dara foog ni yéen a nekk ci lislaam ñu tàmbali nag suuxat cofeel ci seen xol bëgg yonent bi ba fanatism ci yonent bi fanatisme gu àgg ci bu nu duggee ci néegam duñ xam a génn suñ toogeek moom ci jotaay toute la journée mën nañoo toog duñu bàyyi néegam ba guddi duñ xam a génn ba aaya wàcc di leen wax nag di leen xool ni ngeen di def ak sallallahu alayhi wa sallam yaa ayyuhallazina amanu laa tadxulu buyutan nabiyyi illa an yuzana lakum yaa ayyuha allazina amanu laa tadxulu buyutan nabii illa an yuzana lakum ila taamin gayra inahu yéen ñi gëm bis ni koy tey bu leen duggati ci néeg yonent bi lu dul ni da leen a woo jox leen ndigal ci lekk ni leen kaay leen ngeen xewlu te bu ngeen duggee di xewlu xayra nazirina inaam bu leen lijjanti ndabam lu ci nekk yam leen ci seen ndab te bu leen di yër naan waaw Muhammad moom lu muy reere wala lu muy añe ak taalibe alxuraan laa wax de xayra naazirina inaahu bu leen xool ndabam walakin iza du'itum fadxulu fa iza ta'amtum fantashiru wala mustanisina li xadisin waaye bu leen woowee dugg leen ngeen xewlu te bu ngeen xewloo ba pare bu leen fa di wéttali waxtaan bu leen fa toog leen xoolal ni yàlla di yare saxaaba yi war ma jin war a nekkeek yonent bi ci këram wala mustaanisiina li xadis bu leen fa toog di waxtaan ndax inna dalikum kaana na nabi fa yastaxi minkum loola mën naa lor yonent bi mu am ker say wax leen ko waaye nag inna laa laa yastaxi alxaq yàlla moom amul kersa ci wax leen dëgg xoolal ñi cofeel gun am ci yonent ba ñàkk ci ñoom moom sago ba fanatisme tax alxuraan wàcc di leen yedd di leen wax defaraat leen seen toogaay dëgg la bëgg ngeen ko waaye day soxla boppam xadis bii may nettali mi ngi ci saxul muslim urwatum bi mu koy wax dafa waat dani fa wallahi maata naxama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nuxaamatan illa waqaat fi kaffi rajulin minhum fa dalaka biha wajhahu wa jilda nee na maa ngi waat ci yàlla ni yonent bi yàlla bi mësta xax tandiku lu dul ni dafa rot ci loxol kenn ci ñoom mu raay ko ci kanamam ak ci yaramam ngir sopp ko suuf xaaxtandikoo nee na xaaxtandiku yonent bi mësta laal suuf lu dul ni saxaaba yi dañ ko njëkkante raayoo ko aboubacar omar ousmane ak ña ca biir nee na wa isa amarahum ubtadaru amra su leen digalee dañuy njëkkante ndigalam wa isa tawaddaa kaadu yaqtatiluuna ala wadu'i suy jàpp nee na ndoxum njàpp li dañ cay xaw dañuy xaw a rayante ci ndoxum njàpp li pour bëgg koo barkeeloo li mi ci saxil muslim nee na wa iza takallama xafadu aswaatahum suy wax ñoom ñëpp dañuy wàcc seen kàddu ni cell di ko déglu ñaata junni xadis lañ ñu indil jële ko ci yonent bi nettaliñu ko ñoom saxaaba yi jox ñu ko su daan wax cell lañuy def picc sax mën naa tag ci seen kaw te du naaw ndax day foog ni ci kaw xeer la nekk ndax du ñu yëngal benn cër nee na wala yuxidduuna ilayhi nadaran taaziman la daawuñ ko def jàkk di ko xool ngir màggal guñ ko màggal dañ daan sëgg seeni bët su ma saana toog ñoom ñëpp dañuy sëgg lii la tasawuf dekkalaat anas liggéeyal na yonent bi fukki at moo njëkk a dégg xaadimu rasul nekkoon serviteur yonent bi sallallahu nee na raaytu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam wal xalaaqu yuxalliquhu wa qad ataafa bihi asxaabuhu fama yuriduuna an taqaa sha'ratun illa waqaat fi kaffi rajulin nee na maa gis anas nee na maa gis yonent bi watkat bi di ko wat watkat bi di ko wat nee na ma gis saxaaba yi wër ko ndar képp ko nee na bëgguñu lu dul kawar gu wadd rek ba njëkkante kawar gi pour barkeeloo ko bii mi ngi ci saxul muslim bi ma njëkk a wax mu ngi ci saxul buxaari te asaxu kutubil ahadis mooy asaxixayn téere yi gën a wér ci téere yi nettali xadis mooy Buxaari ak Muslim waa ñun amuñu benn jeexital ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuñu kawaram bu ñuy barkeeloo gisuñu ay tiflitam yu ñuy raayoo gisuñu ndoxum njàppoom mu ñuy barkeeloo bisub juddoom ñëw ñu dajaloo ni dañuy fàttaliku bisub juddoom di ko tagg ak di julli ci moom ak di joxe aw ñam nga taxaw fële naan bidaa waaw comparer ñun li ñuy def ak lële saxaaba yi doon def ku ci gën a doon fanatism lan moo ci gën a doon fanatisme ñun dabuñu saxaaba yi sax yow nga bëgg a taxaw fi naan bidaa bidaa bidaa bu la fi saxaaba yi fekkee yow moom lañ lay wax yow yaa nekk ci bidaa moo tax nañu santaat Cheikhul Khadim bu baax a baax te gën a fonk gàmm lu ñu ko fonk doyut xam nga nit ki nga xamul darajaam moom amul daraja joo ko mën a jox kii xamoo maqaamam fan la tool yàlla dala koo nëbbu kon la nga man rek ngay def loo ko jox jox jox daraja loo ko jox jox wàcc waaye am na loo dese parce que dañ la koo umple xamoo lépp la mu Muhammadul Busayri wax rek ni daraja joo ko jox ju dul bokkaale yàlla rek dese nga moom sallallahu alayhi wa kon ci lii lañu ñu Cheikh Ahmad Bamba Xadimu Rasul woo ixyaau mawlidil bachir yaxmil ayaala wa duyuur fiihi chifaun li sudur dundal guddik juddug yonent bi sallallahu alayhi nee na dafay protéger kër yi dafay protéger njaboot gi ku la ko dàq dundal moo lay ëpp protection moo lay ëpp gàllaaj yaxmilan yàlla wa duyur te nee na nag fii sifa undi sudur am na saafara su ci nekk ci dundal yonent bi loo xam ni moom dong moo ko mën ci dënn yi jàngoro bu la sonal nekk ak yow ay at teeweel gudd yonent bi rek te am yéene ju rafet lépp lay faj lépp lay dindi waaw ndegam yonent bi nii la demee ba yàlla mën a indi ci alxuraanam ji nii su ngeen ko ñàkkee respe ñàpp ñàkk ko wor ma man naa yàq seeni jëf mën na koo yàq yow nga bëgg a taxaw jàppee lislaam ji ni mooy julleeg woor kese ak nat asaka ñi nga xam ne dañuy def li ngay def dañuy julli ni yow di woor ni yow di nat asaka ni yow di dem màkka ni yow boole ci nag di màggal yonent bi ci ak guddeem di ko wormaal di def la alquran santaane nga taxaw fële ni leen bidaa ngay def te mbokk yi am na ci ñoo xam ne nii attaqué ab kuréel yóbbe na leen sax ba ñoom dañuy mujj ñàkk war ma yonent bi gis naa ci koo xam ne ci jàkk la toog naan yonent bi nit rek la nit kese comme ñun ma ni astaghfirullah alazim bëgg koo wàcce daal te dara yóbbewu ko nag lu dul contre benn kuréel rek contre benn kuréel boo xam dañoo fanatisme ci bëgg yonent bi nga bëgg leen a kii mujj taxaw naa ni yonent bi nit kese mel ni ku jàngut nga jàng ci xadis yonent bi toog ak saxaabaam yi ci roy guñ ko doon roy ci ñàkk lekk ba bis mu ni leen inni lastu ka atikum inni abitu yutimu ni rabbi wa yasqin bu leen ma roy bismillah mbooloo mi maa ngi leen di jéggalu ngir yàlla ak jëmmi Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ak jëmmi Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul boo nee Cheikh Ahmadou Bamba ne sallallahu alayhi wa sallam ñi toog di xoole ay bët yu jàkkaarloo daa metti jéggal ma ci wax ji wax daa métti te jamono daa tàng te ñu xam li ñuy wax bariwul ku sopp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëggul de waaye man maa ko koy sàkkul wutal loo ko jox ngir yàlla ak jëmi sëriñ bi man zanna annal muntaqa mislul wara fa huwa qumrun qalbuhu ma nuwira loolu sëñ Tuubaa ku jàpp ne muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam moog mindee fi ñoo yem nee na kooku ab dof la te xolam du leer ba mukk laqad tabayyana li kulli siqtida an abna abdallahi xayru muqtada leer na ci képp ku am xel ne ki gën ci ki ñuy roy mooy sallallahu alayhi wa sallam doomi abdallahi ji ak amina moo fi indi moo ñu fi bàyyi moo tax ñu ñëw fi moo tax ñu nekk fi waaye nekk fii rek bu ñu dajee rek jëfandikoo la sëñ Tuubaa lam ñu doon digal rek mu murit ñi liñ gën a bëgg mooy bi sukkarin aw laxami nañuy lekk yàpp rek di ca teg sukkar naan sëñ Tuubaa amul morom nabaxtukum maana ala kadin bada lii qabla an araari dan mu abada lu jiitu may am ngër mandel yàlla lu sax dakk daj naa lu mburu dajul ci taal ku gëm yàlla gëm yonent bi gëm sëñ Tuubaa képp kuy wax loo xam ne lees mën a jëriñoo la li mooy li gën a yemamaay mooy nga jox ko as tuut sëñ Tuubaa ma wax de maalan fa kullu man an anfaqa fii mu musarafi ku dépensé ci guddi tey gii nga xam ne moo gën a tedd ci guddi gudul moom alal waxul nag ngay puukarewu ci lu dul yàq walaw bi xaddir dirham yi la wax donte ne benn dërëm la fa innahu kaman adar yawma unaynin wa sabar wa yawma badrin wa nasar xayral wara mu fahim mel nga ni yaag saaba yi àndoon ak sallallahu alayhi wa di xare moo xam bañ leen di gañe moo xam ba ngeen di gañe di yëkkati drapeau ba ànd nga ca yooyu yëpp kon nag ku toog di wax ak ñun ci sallallahu alayhi dañ ciy jàpp léeg-léeg ngir yàlla waaw ndax daa metti te Cees la jëm te daa am bërëb yu bari yu muy teew te sama benn maam lam daan wax laay wax saalum laa jógee ñëw doxuma damaa dugg oto oto yo lakkuñu ndox essence lañu lakk te sama kër maa nga fa bàyyi ceeb ak soow kon gaawal damay ñibbi ko kon daam lu muy jëwoon donte ne daa ñëw pour laabire jaam ñi nag waaye oto ba muy war ak fa mu jëm nag wax dëgg yàlla caaxaan du fa yóbbu nit tànki neen du fa yóbbu nit warul gëlëm warul fas ngeen jégal ma. ndeysaan jërëjëf ci ñaan waaye ni ma ko waxee ci tàmbaliment bi rek ñun moom dañuy jéem a fay si bor boo xam ni <laughs> mënuñu koo fay Seydina Omar ak soxnaam su baax si yal na leen yàlla jàppale waaye kera ci jumaa jooju dama am lu ma metti te man habitude wu di attaqué kenn ci jumaa ndax war warmaal néegu yàlla bi ak xëy ni mën naa jur lu ne waaye ma ne xoolal kii attaqué ak kuréel rekk tax na mu mujj dugal boppam ci guuta goo xam ne yàlla tere na ko ay saxaaba yonent bi comme ñun la moom la sëñ Moustapha wax sànq man zanna anna al Mustafa mislul wara fahuwa xumrun xalbuhu manuwira képp ko njort ni Mustafa ak yee yam nee na ab dof nga buy nelaw rekk te sa xol leeralee fu ko sa xol dafa lëndëm sallallahu alayhi wa sallam melul ni ñun melul ni ñun mooy maami aadama maamam lii la téere yi wax mooy maami aadama maamam wóor na yàlla sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ni saxaaba yi bu leen ma roy ndax man damay fanaan guddi sama borom di ma leel ba ma suur di ma nàndal ba ma màndi kon bu leen ma roy nga bëgg a toog ci néegub yàlla di ko yamale ak nit ñi ngir rekk contre kuréel goo xam ne ñoom seen cofeel ci yonent bi dafa jeex tàkk moo tax suñu kilifa yi <laughs> ñoo gën a dégg lislaam Seydi Hadji Malick dafa wax bayit boo xam daa mel ni waaw te effectivement sax saar boobu rek la dégg dani walaysa li amalun arjuhu yaa amali si wal mahabbati wa taazimi wa salami walaysa li amalun arjuhu aw ma jënn jëf ju yaakaar te pourtant yow mi wax sunna sunna wallahi Seydi Hadji Malick moo la dàqoon a julli moo la dàqoon a woor xoolal lim daj ci aj màkka coono yim ci daj xoolal lim daj ci protéger sunna te nee na sama jëf yi xaw keneen waaye man sama jëfi bopp julli yeeg woor yeeg natt asaka yi aw ma ci lu ma yaakaar ëllëg ñu ni ko ah mu ni siwal ma xabati lu dul cofeel gi ma am ci sallallahu alayhi wasallam cofeel gi kese laa yaakaar mu ramm ma ëllëg tabbal ma àjjana siwal mahabbati lu dul cofeel gi wa taazimi ak màggal gi ma koy màggal wa salami ak jël gi ma jël sama lépp jébbal ko ko waaye amal yi moom jëf yaakaaruma ci dara ak ñoo dégg lan la wa huwa rajaiya fi daarayni yaxduruni inda ixtidaarin wa qabrin wal qiyaamaati wa huwa rajaiya mooy sama yaakaar mooy sama espoir moom sallallahu alayhi wa sallam fi daarayni àdduna ak alaaxira te mooy may teewe mooy présenté ay inda ihtidaariya ci jamono yu may sukkuraat mooy ñëw ci sama wet wa xabrin jamono bu ma duggee ci biir bàmmeel moo ma fay wéttali wal qiyaamaati yowmal qiyaam tamit moo fay ànd ak man dem na ba ni àdduna amul lu fi rafet amul lu fi neex lu fi lu ñuy mus mu neex amu fi amul lu ñuy xool naan ak rafet lu dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muhammadun zinatu dunya wa lazzatuha nee na Muhammad mooy taaru àdduna mooy cafka ba gën a neex ci àdduna sallallahu alayhi wa sallam fii la tegoon yonent bi alayhi salaatu wa dem ba wax ni muhammadun zikruhu mu la ñuy def noon yéen a gën bañ nga dem ba wax ni coono yooyu yëpp fàtte naa ko bi ma yëgee ni yonent bi mi ngi bég ci xasida yi ma koy tagg daa mi daa di qada xaaji li xidmati man tabsiruhu dararal aadaayi ansaana dararal aadaayi ansaana bégal gi ma koy bégal moo ma fàtteloo lor ya noon yi doon teg ca gaal malaktu bi muxjilal mawji wal yemmi malaktu bi rabbi muxjilal mawji wal yemmi bi madxi lazi ava ansa aval fulki kal gammi nee na ci sama borom loo xam ne fàtteloo na ma la ma noon ya doon teg ci ay lor ca gaal ga ak njàqare yañ ma doon teg kon ci gàttal daal mooy li may daanele sallallahu alayhi wa sallam ci ak dundam feebar bi ko jëlsi ci fanam yi mujj daa dugg ci baqiyan daa dugg ci baqiyan muy armeel yooyu dend ak medinatul munawar ñi dem màkka ziyaare nañ ko génn wiccax bopp bi ni mata alqa ahbaabi ay waay kañ laay taseeg sama soppe yi kenn ci saxaaba yi ni ko alas naa ahbaaba ndax ñu dal duñ say soppe mu ni ko yéen samay saxaaba ngeen samay soppe samay ginnaaw la ñuy ñëw sama ginnaaw la ñuy ñëw sama ginnaaw la ñuy ñëw daana wax ni min ashaddi ummati li xubban naasun yakunuuna baadi hadis bi mi ngi ci muslim bii may wax mi ngi ci muslim nee na ñi gën a tarle ak cofeel ci man aw nit lan wuy ñëw sama ginnaaw hadis bi nag li ma ci gën a yéem dafa wax ni ya waddu ahaduhum law raani bi ahlihi wa am na kenn ci ñoom ci nit ñooñu koo xam ne nii bëgg maa gis dana ko jaral mu tàqalikook njabootam ak alalam kooku du kenn ku du Cheikh Ahmad Bamba Xadimu Rasul wallahi lazim te lii xadis bu wér la gaa yi duñ ko weddi ba parce que mi ngi ci saxil muslim yawaddu ahaduhum kenn ca ñoom dana nam mu law raani ay bu ma gisoon gis ma tëg ma bët dana ko jaral mu jaayante tàqalikoo bi ahlihi njabootam wa maalihi ak alalam kan moo wax ni dami wa ahli wa awlaadi fidaawu sama alal sama njaboot lépp fidaawul naa ko pour bëgg a gis yonent bi sallallahu alayhi daan wax ni kullu zamanin la azalu atlubu liqaahu wa artaji wa argabu instant bu nekk maa ngi sàkkoo dajeeg moom pour bët koo teg bët di ko yaakaar di ko désir naan kabura azza ma talabtu ya aziz min ka wa ma huwa alayka bi aziz rëy na màgg na jafe na li may sàkku ci yow yàlla waaye nag xam naa ni yow jafewul ci yow ndax yow temps tënku la espace tënku la lieu tënku la bëgg a gis yonent bi sallallahu ba bu daan salaatu sax ngeen demee ci alaaman am na salaatu boo xam ne lam ca fas mooy gis yonent bi ayaanan ci bët ak bët salaatan turini huna yaa ayaanan li yàqal qalbil jari salaatu bi maa ngi ciy fas a gis kanamam nga ci samay bët ngir mu mën a saafara sama xol bi nga xam dafa blessé wu ci bëgg koo gis ñoom fii lañ tegoon yonent bi bu dee julli ñoo la ko dàq bu dee woor ñoo la ko dàq waaye dañoo am lu ñu xam ni bëgg yonent bi moo leen koy may suuxat bëgg yonent bi ci seen xol moo leen koy may daraja ya ca yàlla makaama ya ca yàlla ak yenn jaax yi loolu rekk leen ko mën a may moo tax ñu tegoon seen tànk ba àgg foo xam ni la leen ko may mooy bëgg sallallahu alayhi wa sallam te suñu waa ji moom model la ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Rasoul kon nañu gën a suuxat guddi gii liñ ci jàng mooy nañu gën a suuxat ci suñu xol yi bëgg yonent bi sallallahu alayhi te ak waaye di bu ñu yóbbee mukk gaa yi nekk ci réseaux sociaux yi nga xam ne ñoom yàlla na leen yàlla yërëm rek yàlla na leen yàlla yërëm waaw bu ñu dox sa diggante mukk ci manque respect yonent bi ak màggal ko ak teg ko wàcc waayam bu dee gàmm moom saxaaba yi moom ci lañ dëkkoon dañoo dëkkoon ci gàmm ba exagéré ca alxuraan ñëw di leen recadré waat yàlla naan leen nag ah def leen nii ak nii ak nii ñun dabuñu leen kon yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp yàlla may ñu ñu fekkee ko at yu baree bari bi jaahi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te lépp luy yokk suñu cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi nañu yàlla yombalal loola lépp suñu cofeel ci yonent bi sallallahu yàlla nañu yàlla dàqal loola ci barkeb Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou rasuul su ko defee yéen jànkati xasida yi ngeen góorlu bu baax xadis nag ku nekk ak na nga dégge moo waral coow yi bari lislaam moom déggin yi wuute yi moo tax mazhab Malik am mazhab Abu Hanifa am Hanafi am xanbali am waaw ñooña nag seeni darajaat àgguñu fa waaye man ni ma déggee yeneent bi lam doon wax naan kañ laay dajeeg sama soppe saxaaba yi naan ko ndax du ñun mu naan leen yéen samay saxaaba ngeen waaye samay soppee sama ginnaaw lañuy ñëw man moom bokk naa ca ña ko firee ni ñooña moom bokk na ci ñii nga xam ni guddeeg bëccëg ñu ngi laxasaayu di yëkkati xasaayid yi nga xam ni moom la Cheikh Ahmadou Bamba Xadim Rasul tagg waayam ji dëgg dëgg soppe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ guddeeg bëccëg ñu ngi koy tagg kon nañ ci góor góorgóorlu bu baax a baax damay faral di wax ni jànkatu xasaayid bu sellalee góorgóorlu kuy gaaw a àgg ci yàlla te kuy mus lu baree bari la ci mbir yi fàddu ndax dafay am ñaar mooy jullit la bëgg yonent bi beneen bi mooy kiy wasilaam dafa am benn service spirituel bu dox diggam ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam te mooy Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul kon ngeen góorgóorlu ci baax ñu ngi wàcc foofu suñu kàddu suñu musuwaa di jéggulu euh, erreur yi nga xam ni xëy na am na ci waxtaan wi yéen boroomi xam-xam ngeen yaag sëñ euh, imaam Omar Cissé moom wax dëgg yàlla <laughs> sama sama sama sama ustaaz la sama sëriñ la sama roywaay la itam ndax am xam-xam ba pare wàcc sa bopp woyof loolu moom maa ngi koy roy ci moom ba pare dimension bu kawee kawee la am yenn saa yi ñu toog waxtaan lu soree sori muy ku baax sëñ Moustapha ñu ngi la koy seedeel bu baax yow it di la jox sa wàcc waaye di la jéggulu kàddu yi ñu fi yëkkati waaye di la sant ci teraanga ji wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.